à dire on va expulser les entreprises françaises dafa ne son Sonko bu yéegee les accords yi m fi fekk yépp da koy tegaat sur la table les nouveaux waxuma ko mais les anciens yépp lay teg sur la table. renégocier. tout sera renégocié. ah termine Amadou. donc pour vous dire que leen seen problème xam nga lan la vous avez combattu quelqu'un au départ c'était sur les réseaux sociaux le candidat des réseaux sociaux aujourd'hui Ousmane Sonko a une dans le classement cette fois-ci officiel des personnes des personnalités africaines qui euh, imposent le plus de confiance xoolal classement bi Ousmane Sonko nekk ak bi Macky Sall nekk. loolu ban bon eh, ça sort d'où <laughs> may ma euh, xam nga man. référencé référencé. waaw ban sondage la. classement des. nu ñu tudd personnalités africaines. feebar kii ku ko bi nga xam ni xoolal xam nga. man tontu rek yow tamit ku ko def je vais pas perdre mon temps ci loolu ku Sonko fi mu féete. mais mais mais ban institut moo def. te donner parce que man. nee naa la toujours non je vais continuer. defal ndànk rek euh, ma wax la rek. non non non non non c'est pas non. c'est le New York. Euh, may ma rek classement personnalité. taxawal tuuti ah, rek. Sonko vous allez non mais vous allez la voir de toute façon man nee naa la euh, vous allez la voir. kooku y' a pas de souci. institution bi nga jàpp en attendant dinaa la ko euh, dinaa la ko jox. institution pour vous dire quoi euh, euh, que actuellement actuellement. Mm-hmm. Ousmane Sonko a forgé sa stature internationale te génnul réew mi parce que vous avez bouclé son passeport. pourquoi c'est la communauté internationale qui s'intéresse à lui parce que il incarne un nouveau paradigme nouveau paradigme français yi dañoo dem ba analyser gis ni ils sont en perte de vitesse et ils risquent de perdre leur joyau muy le Sénégal qui était leur chasse gardée jusqu'à présent léegi y avait deux options avant ñu soutenir Macky Sall ou quelqu'un qui lui après analyse xam nañu Macky Sall il est fini xam nañu le courant que représentent les Amadou Ba et autres il n'est pas représentatif de la jeunesse africaine ñu ne kon kan la ñu gis koo xamante ni ñoom ñoom ñoo changé vis-à-vis de Ousmane Sonko Ousmane Sonko n'a demandé un rendez-vous avec l'ambassade de France te mu ngi fii n'est-ce pas c'est kii qui est venu rencontrer pour nga xam kan moo soxla kan kan moo seeti kan këram la toog ngeen nangu passeport am barricade ko def fi ay gendarme mënul génn ay doomam sax mënuñu jàng ah, donc une personnalité de déglu ma rek une personnalité de l'Élysée imposer leen yéen malgré bloqué su këram bu dee am na bu dee am na dégg nga donc ñu ñu ñu ñu ñu rendre ko visite. Mhm. alors même qu'il n'a jamais ah, effectué. 2017 xoolal 2017 la Ousmane Sonko gëj France 2017. Mhm. donc il n'est pas allé rencontrer les les officiels français. supposé en France à l'étranger c'est ici la toog biir këram supposé. ñoom ah. ñu wàcc seen avion Macron yónni leen ni leen dem leen seetali ma Ousmane Sonko ah, ce xam nga lu muy tekki li mu leen waxoon Ousmane Sonko a réussi alors même qu'il n'est pas président de la République <coughs> mhm, a changé les paradigmes de la relation France-Sénégal ba nga xam ni tey France a compris que demain s'il veut encore jouer le rôle qu'il joue en Afrique il faut que mu composer ak l'avenir du continent muy Ousmane Sonko ak assimilé plutôt que les vieux classiques comme Macky et Amadou